faral di may dal bala may am dom da daan di med, parce que premier jour bi daanu ma jóg sa pour jog sa problème la damay tëdd rek. day metti mën def dara damay naan garab obligé pour ma mën jug liggéey noonu genre. auparavant nag euh, yëg metti mais par la suite si laa commencé di am ay douleur muy metti di jàpp sama ndiggi beeg yooyu genre. muy jéeg ji suñuy gis ana lu ndax la wala ci lu jar ñu seeti kër docteur mu indi ci ay leeral Abdoulaye Diop di gynécologue obstétricien xelam màcc lool ci wàll bi waaw règle douloureuse di ko mën a créer bëri na euh, li ci li ci ëpp règle douloureuse soo ko amee euh, butu jurukaay bi mooy jaaxaal ñu ñu tuddee toujours rétroversé maanaam butu jurukaay normalement dafa war a pencher en avant dafa war a nekk si kanam mais am na jigéen yoo xam ne seen duñu judduwaale butu jurukaay boo xam ne dafa dem ci ginnaaw. te ni ni buntu di jurgaay nekkee ci ginnaaw noonu sooy gis règle nu muy concentré pour génn règle mën na indi règle douloureuse yeneen yi indi règle douloureuse tamit mën na nekk léeg-léeg feebar bu nekk ci buntu jurkaay bi mun nga am fibrome fibrome soo amee fibrome soo am règle règle yi mën na metti mën nga am kist yoo xam ne soo gisee règle bébé bi dina metti mun nga am infection aussi boo xam ne soo gisee règle sa bébé dina metti mën nga am feebar bu ñu tuddee endométriose endométriose mooy maanaam ñax bi nekk si bitu jurkaay bi nga xam ne mooy defar reeg léeg-léeg dafay nekk ci biir bitu jurkaay bi war a nekkaale ci biti te su nekkee ci biti ñi ngay gisee reeg ci biti deret bi di tuuru noonu la ci biti ci biir tamit ngay gis reeg ci biir te du feeñ boobu day joxe reeg douloureuse boobu mooy cause reeg douloureuse bi gën a garaaw parce que boobu soo soo soo si teelu lay jóg su yàggee sa yaram mën na lay indil ay gàllankoor pour nga am doom. waaw docteur ndax loolu ñuy woowee utérus rétroversé mën non non loolu du déformation loolu judduwaale la jur jurukaay normalement dafa war a penché ci kanam tëdd ci kaw butitu sawkaay bi loolu mooy position bu normal mais am na nit yoo xam ne suñu juddu seen butitu jurukaay au lieu mu penché ci kanam dafay pencher ci ginnaaw lu ñu tuddee variation anatomique du feebar mënoo si dara da nga ko judduwaale noonu la mel euh, du changer su nekkee soo ëmbee nag ba wasin da ngay ëmbee nii jur jurukaay bi di gonfler pour bébé bi soo wasinee suy dégonfler toujours suy dégonfler ci kanam lay ñëw lu delluwaat ci ginnaaw ci la boobu la règle douloureuse di di bàyyi malheureusement suñu culture africaine dañu jàpp ne que règle douloureuse du normal boo ko amee dañuy wax ne sa yaay amoon na ko sa maam amoon na ko sa tante amoon na ko et que soo wasinee wala nga am jëkkër dina bàyyi et donc euh, duñ ko toppatoo tant que demuloo ba sëy ba am doom su règle kon di métti ci li ñu jóge nag gëstu règle douloureuse boobu gis na nag finalement du woon lu normal mais am na leneen lu nekkoon ci ginnaaw mais règle douloureuse jotewul dara at ku sëy wala ku sëyul à partir de de puberté soo commencé gis règle rek mën nga am chance gis am règle règle du métti mën nga am malchance gis règle day di métti. ginnaaw ba lu ci ëpp ci jigéen ñi réere nañu mbir yi li xam-xam wante dañuy faral di wut saafara ci garabu wolof yi. benn jour laa koy sama tata bi après mu ne ma genre ceeb soo koy jël di ko di ko faral di def sa ndox wala genre ngay togg ay sombi di ko si def genre yooyu noonu da lay libérer si infection yi ak biir buy metti lu ci gën a gaaw daal limon doom bi nga jël ko nga dagati ko balaa ngay gis say règle soo xamee ni deux jours avant ngay gis say règle mën nga kaa jël nga def ko benn douche avant mu ñëw bi nga xamante ni ay 12 jours wala 5 jours genre moo dese danga jël persil nga tàngal ndox def ko si di koy naan loo tamit dina mën a limiter douleur bi. persil limon ceeb wala yeneeni fem yi fi maam bàyyi woon moo leen ci dimbali bu baax maanaam garabu cosaan. fii ci champ de course bërëb bi ñu indi jaaykat yi nekkoon ca garba am na pàcc wu ñu jagleel malien yi ñenn ci ñoom ñooñule seen xel màcc loolu ci wàllum fajum cosaan bile.

Rokia Traoré la wuyoo soxna si di yëngu ci njaayum produit malien ñu gën ko ragné ci njaayum garabu muy xamle ni ndono la ci mom mom nak su waxee rek ngeen xamni ni bambara la. kam xam bi doon la ci man mhm. nami mi sa xalé yu bari dama leen moccu lolou la ci man yef yi yef yu jigéen leen ci yoré fi cosaan la dal ci man. depuis sama yaay depuis sama maam ni leen ci def na. jàpp ci nasaraan ñu koy woowee vétiver gowe wala souchette xob ak xas bu aldake ak xob bu jekka boo ko boolee bari na lu muy faj. xale yu bari léegi bu ñuy sonn ci règle dañuy dem pharmacie jënd garab boo sonn waaye bii seerewul yomb na. même boo fekkee nekk lu sa nga daal di coppati tuuti tuuti boole ko ci sa kasiloor mbaxal ko naan suba ak ngoon weer bi si non soo ko kiyee rek sa weer bi bu ñëwee rek jeex na doo sonn mais xale yi léegi moom du ñu dégg kenn ne na maam wala yaay seen yëpp africain yooyu moom bëgguma ko xaaral ma dem ci pharmacie pharmacie dëgg la kay pharmacie dëgg la waaye bii tamit la de parce que pharmacie ñëw na fekk garab yi mu ngi ci àdduna bi fay jëkkaa la bu xonk bi bu vert bi nii mooy àndake bi digi jë la nga boole ko ak ñii def ko ci sa kasloor bi bu tàng tàng nga naan soo ko naan doom dangay gis fi ngay togg nii yëf bi yëpp day day génn yëpp day génn rakas sa biri bi ba mu set moo indil biri bu metti yu bëri bëri bëri bëri bëri sax perte blanche gaaw ci lool parce que biri bi su metti ni war a génne ci yow par weer su génnewul moo indil perte blanche comprendre waaw tànge yaa ngi naan nii perte blanche moom da ngay ko déggee rek ko gis waaw. même boo nekk jigéen bu biir ah boo biir nii. nga jël bii nii di ko mbaxal chaque fois di ko naan doom sa doom bi bu génn day set yaram bi day set yaram bi day set bu baax a baax a baax sax yow mi di ndayam balaa ñu raxas boo ko foon nii nga gis ci yaram bi day xëy seppi gis nga nii nii amul góor amul jigéen ànd ak sama doom secret boobu ma wax la te amul góor amul jigéen mbaxal di naanee rek même sa yaram boo saw sax danga gis sa saw bi day xeeñ xeeñ bu neex parce que day raxas ci biir doo gis perte blanche biri bu metti métti yi sew sew yooyu doo ko gis day neexal sëy même boo toog sombi nga raxas yi ba mu set digije bi nga sànni quelque doom ci biir sombi bi nga xool ah nu mu def bari na de doom gis nga ñun bambara yi boo demee sëy nii léegi une semaine bi ni ngay ci def wala trois jours bi ni ngay def ci biir néeg bi doo génn doo naan dara sombi sepp yi ngay naan ngay nooy laa la wax sa jëkkër nu mu bugg ci yow dina ko am africain africain rek lay doon garabu africain moo bak ci africain gis nga nii même tubaab yi dañ ciy jënd mhm. waaw waaw touristes yi ba ñuy ñëw ci marché dañuy jënd sepp seppi om kay du jeex garabu cosaan bari na njariñ surtout ci wàllum feebar di règle douloureuse di Aïcha ligayom mu ngi ajoo ci xelal waay dencante yi ak jigéen ñi ci seen bopp ak it ci seen di dëggal solos cepp aldake ak gobe bi

képp koo xamante ne bëgg nga raxas sa biir Euh, dindi lepp lo xamantene ne impureté la infection prévenir les infections nga am ko comme nga ñak ko am nga bañ ko am yépp mën nga koy naan nga nekk célibataire comme marié donc dès que nga atteindre l'âge de la puberté en tant que femme mën nga ko commencer utiliser ñi nga xamantene dañuy am faral di am règles douloureuses donc dama leen di conseiller à ce que ñu commencer ko utiliser déjà une semaine avant que ñu gis seen règles mën nañ ko commencer utiliser mooy ñi nga xamantene ce sont les célibataires donc ñooñ bu ñu ko commencé utiliser di ko a à chaud dina tax euh, mu prévenir douleur yi ba bu ñëwee du metti comme ni mu waroon méttee nga continuer di ko naan ci biir règle yi day atténuer douleur yi bu baax a baax a donc mélange bi ngeen di gis baax na baax boo xamante ne day tax sang bi di circuler day dindi lépp luy infection lépp luy odeur vaginale day dindi démangeaison lépp loo xamante ne daal problème la lu nekk ci biir ak euh, butitu njurukaay yi ak sawukaay beeg yëpp da koy raxas ba mu def ko ni mu wara mel et en plus de cela euh, jigen bi nga xamantene da fay sëy da koy lubrifier euh, toyal kanamam mais tamit góor ni tamit am nañ ci wàll ñoom it mën nañ koy naan ndax day lo gis ni day raxas deret tax le sang circuler normalement donc fay tax euh, appareil génital masculin bi di fonctionner correctement voilà donc pour ñepp la muy góor di jigen ginnaaw ba yàgg na ko jëfandikoo te it di ko digal ñi koy nemmeeku si mu ñuy wan nam koy defaree. gis nga lii rek doyna ben ko koonu ceeb xasu a bi feuilles ak yi c'est pour un litre cinquante mhm. léegi ñu raxas ko. yelandiwaat rek une deuxième fois. Les détails jii par exemple euh,

bàyyi ko foofu. Mm-hmm. mais bu xëyee bala mu koy consommer da koy tek su baxee mu xeeli nan mm-hmm. ngoon gi mu tàngal naan guddi gi mu tangal nan donc on peut pas le boire froid quoi. soo froid da fay da fay euh day neexal saw bi rek. Mm-hmm. odoru saw bi rek moy changer mais bu fekkee ne da nga bëgg fajj faj li nga xamante mo moo nekk ci yow. da nga koy tàngal balaa nga koy nan important de sentir wax nga de jeka et c'est plus pour qui c'est marié voilà ni ki nga euh, nouvelle maman la dañ les feuilles de jeka de ce fait mu apporté walel ko propriété yi soxla ko raxas ko euh, dindi et surtout mu mu li nga dû à l'accouchement

automatiquement mu sotti euh, si kaasam nan mais pour baña courir risque dañuy préférer bàyyi ko ba e mois ñu soko commencer défaral ni muy nan euh mëna ci raxal li partie intime am léegi bébé bi dina am peau bu rafet du am xet et metti tu bir aussi du ko sonal euh, gis nga mu ngi bax ni gis nga feuilles yi ñu dugaloon sànq ñoom ñëpp ubbeeku nañu fim mu nekk nii ubbeeku nañu donc mu ngi bax ni dañ koy euh juste cinq minutes après ñu ñëw fay ko mën wane naka lañ koy consommer. su ma bëggee xelliwaat beneen heure bi. c'est ah pas, ah bon pas très amer. Hum, on ne le consomme pas avec du sucre. am na ñoo xamante ne buñ ko naanee du wex ci ñoom mais am na ñoo xam ne day wex ci ñoom. Mhm. voilà mais duñ ko consommer ak sucre. du lek bu neex waaye day faj comme yeneen garabu cosaan yi askan wi amu ko lool Abdoulaye Ndaw mooy njiital kuréelu fajkat yi di jëfandikoo garabu wolof yi. moom it mu ñuy xamal beneen xeetu garab buy faj lii di règle douloureuse. xam nga ci cosaan tamati toujours euh, dafa am yoo xam ne mag ñi dañ ko daan jëfandikoo lépp lu war jëm seen wàllu wér yaram dañ naan trouver solution te solution bi ñu ko daan jëlee nag mooy si si gàncax gi waaye si ilaa ñu jëlee ko feneen fu dul ci gàncax yi sax mais daanañ fexe ba am luy saafara seeni tawat. am na xam ne wóoluñu euh, garabu traditionnel bi waaye nag néew na moo gën a néew ñi si ñi ñiy faju ji dafa dañuy wax ne chaque plante est une pharmacie chaque plante rek est une pharmacie garab boo gis rek pharmacie rek kenn ku nekk mën nga say faj lu bokk rek sa moroom li mu si faje moo xam ren ba la moo xam xas ma la moo xam doom ba la moo ki ma kenn ku nekk yor nga loo xam ne bokkut ak sa morom si lu muy faje si benn même même feebar si même feebar waaye Euh, boo xamee xobu doomu kii kinkiliba kinkiliba doom yi dafa am doom am na ay doom doomi kinkiliba yi dama ko jëfandikoo léeg-léeg si ñi xam ne seen dañ am problème rek douloureux dañ ko jox ñu koy naan doomu kinkiliba naa ne boo gis lu bëri waaw sama secret sama xam naa la naa la ko wax maa la koy maa la koy wax doomu kinkiliba man yooyu laay jëfandikoo am na yeneen garab yoo xam ne tamati ne euh, dama koy jëfandikoo mu jëm si mu jëm si ci ñu koy waxeeti mu jëm si ay règle règle règle douloureuse lu mel ni ñu koy waxeeti ñu koy waxeeti euh, dama koy jëfandikoo léeg koy liggéey pour mm-hmm. waaw yooyu plante garab la garab la kilibaa bi ak doomu kii kilibaa bi rek la ngay jëfandikoo moom rek ngay baxal bu si tëbee ngëpp benn ngëpp rek mm. bu si tëbee ab ngëpp ngëpp loxo ni baxal ko si litre ndox. Ah, jox ko ko xam ne dafa am problème règle mën naa seetal règle douleur yi. dëgg la garabu cosaan baax na waaye yenn saay li ñuy wax dosage ak posologie mooy li ci dese leer docteur Abdoulaye di ci antu. médicament traditionnel amna le médecine traditionnelle lu am la euh, d'ailleurs ci wolof garab ci plante des plantes, euh, donc mënuñu bañ médecine traditionnelle bi suñu problème bi ñu médecine traditionnelle que mu nekk pour règle douloureuse wala que mu nekk pour problème de posologie problème dosage dosage ñu wala wala trop. Abdoulaye Ndaw di tontu ni. si dañu tegul si tegul si xam-xam fa ci teguwul si xam-xam dafa tegul si xam-xam ndax xam-xam biñu ñu ñun ñi ñun liggéeyuñu ko maam mo ñu fi bayil mu def ay experience am muy xam-xam bu woor ñukoy joxorante diko joxante bam yek yegg si ñun duñ ko wañi duñ ko yok si niñ koy liggéeyee li ci am problème koy moy jëfëndiko bo xamne ne ko si xam-xam comme li xew légui jamono légui liñ wax ni koy faral di wax automédication si plante yi mooy ñu la xas sàngam na ngeen dem naan reen sàngam baax na nga dem jëli ji naan ñu la xob sàngam baax na nga dem wuti jëm jënd ji yow tax yaa ko doo ko wuti sa àll ba de da nga dem fañ koy jaay nga dem jëli ji ko ndax xaw ma ndax garab boobu ba moom la wala du moom ndax nañ ko dencee baax na wala baaxul da nga dem jënd rek daal di naan xamoo nañ koy doose xamoo nañ koy préparé xam-xam lalu ko lañ la ko wax noonu rek nga ne loolu mën naa andi musiba mën naa andi musiba kooku moom gëm naa ne man mën naa andi musiba mais su fekkee ne xam-xamu cosaan la boo xam ne xam-xam bi maam ñoo ko liggéey ba mu baax wax la nii lañ koy defaree niñ koy wutee ni ñu koy defaree ni ñu koy joxe ñaata yoon nga koy joxe ci bés bi kooku du andi benn benn benn benn benn problème. la maam yi bàyyi woon jugu fi ba tey. mbir mi mel na ni leer na ci ñëpp muy fajum cosaan mbaa muy fajum nasaraan si bu ci nekk am na solo te lii di règle douloureuse ñaar ñëpp am nañu ci xam-xam bu wóor donte sax fajum cosaan bi mooy bi gën a yomb nasaraan si sax dañu koy faral di wut si di ko jëfandikoo. lu ni mel tax ñu war ko bàyyi xel. ñu doon waxtaanee lii di règle douloureuse maanaam jigéen ñi nga xam ne buñuy gis mbaax day ànd ak mettitu biir mu am ay garabu cosaan yu fi mam bàyyi woon te baax ci lool lu ci mel ni aldake gowe cepp wala feuille ba ci kenkeliba pañe de soxna may doon leen ci indil ay leeral di leen jox dig daje ci beneen numéro